nit ki boo ñëwee sa aqulaayu taala d'abord sa diggante ak sa bàmmeel sa bopp sa borom mais sa diggante ak askan wi la fal lang doon bañ dem ñu def ko doon nangu tey nga koy def yoon lang doon bañ dem ne du yoon dëppoo la yoon te nga waxoon dëgg danga ko war a sàmm lan mooy ndeyu man Macky Sall warul def lii yow nga ñëw naa def li Macky Sall ma ma ndew ma def lu jëkkati Macky Sall li mu doon def kan moo am droit boobu mais amul kenn ku yàlla may popularité boo xam ne mbala bëgg-bëgg boo xam ne mën nga ko am du Macky Sall du ablay Wade du Abdou Diouf mais du Sonko du Jomaay du kenn képp ku yàlla fan dangay nangu li nga xam ne mooy pal bi ni ñi nangul la ko yàlla moo la jox mais nga nangu ne nit ñi say nawle lañ respect bi nga jox sa bopp da ngeen ko a jox mooy loolu te lépp na lu waay rendi ci say loxo lay naaj saaga ndey saaga bàyyi ŋañ foo nga li ma dégg démb bi premier ministre génnee taw lu rafet nga jaroo premier ministre réew mi di saaga mu koy dégg waxul nation moom nga koy saaga waaye ngay saaga rek mu dégg ko moom loolu rafet loolu normal la képp ko def war nañ la duma la teg la ci yoon